bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi waxdahu wasalatu wasalaamu ala rasulillah seydina muhammadin seydi alawalina wal axirin wa ala ali yaa himmata cheikh ahduri lana bi hada almahdari waltaatifi binnadaratin taati lana bi zafari rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani xaw qawli sëriñ bi ñu ngi ñaan ndigal ci kàddu yi ñi bugg a yëkkati mu jëm ci àddina yépp ñi ngi koy wax di ci uutu ñi nga xam ne ñoo ñu gënoon a fasaha ëpp ñu xam-xam ëpp ñu xàq sax ci taxaw wax fii waaye ñu ngi jëfee ndigal taxaw fii sànni baat yi nga xam ne moom lañ bëgg a wax wutu ci coordination gàmmu 2024 comité de coordination gàmmu 2024 bi nga xam ne ren ñoom la yàlla dogal organisation bi sëriñ bi wakkil leen ko ci fukki fan ak ñeent ci gannaaw mën naa wax ne tey mooy fukki fan ak juróom-ñaar ci bi ñu tàmbalee waajal taxawaay bés bi ak tey ñu def ci ay effort ak ay góor góorgóorlu yoo xam ne sëriñ bi dafay jaadu bu àddina yëpp dajee ñi wax leen ko jamiyatu ansaaru diin du wut lu bees ci pey bii Mawlana Cheikh al Islam Alhaaj Ibrahima Niass suñu sang ki nga xam ne moo yore joxeñ bi ñuy xool ñun su joxeñee fi mu joxeñ la xool moo joxe ñoon jamiyatu ansaaru diin ci année soixante yi loolu ñëpp gis ñëpp koy dégg ndax moom waxam réerut tey foo taxaw dégg bam naan taalibe yi sëriñ mbay bind naa leen leetar Barham dana leen ko jàngal Oustaz Barham taxaw fii ci penc mi jàng leetar boobu ci olof jàng ko ci arab firi ko ci olof ne lii mooy dagg lay taalibe bu bëgg sàggan ëllëg bàyyi bind ci këyitam toog ñu jàng ci kanamam loolu dafay dindi lay te loolu ñun mën nañ cee firndeel dara sëriñ bi jamono ji yu bëri xew na sos nañ yu bari waaye ñun de duñ dendale benn sos ak lu bàyyi sosoon te Jamhiyatu Ansaaru-Din moo ko bind moo ko sos ne taalibe yi nañ ci sofu nañ ci nekk kon foofu rek laay wax ne taalibe bu nekk na làmb boppam ndax muy ci loolu wala nekku ci génnewuñ ci kenn nag ñëpp ci lañ bokk comité de coordination boobu nag juróomi vice président ñoo ko seq noonu lañ séddale woon Sénégal cinq zones vice président yooyu rek lay tudd seen tur ñi yóbbu ñi aju ci ñoom ñëpp mooy Sénégal demet ku bokk ci ansaaru diin kooku ki ci njëkk Ibrahima Seck muy Barham Seck ci Dakar moom laa ci jiital tudd Ibrahima Jongu bi nekk ci Fatick topp ci alhaaji Ndiaye bu nekk ci Kolda topp ci Mamadou Tunkara bi nekk ci Linguère topp ci xanaa kon mel na ni joxoñ nañ ñeenti wàll yi Sénégal jublu ñi teg ci jaamu yàlla bu xeebu bii taxaw fii ñu ne mooy war a wax ci seen tur ñoom muy Seydina ci Cissé Niang mu jiite Ansaarud-Din groupement bu Kaolack waaye yore chaise bi nga xam ne liy xew fii lay xewee kon sëriñ bi ci baati ñooñu lañuy gërëm taalibe yi ndax biñ ootee xew-xew bii ñoom ba ñuy adhéré ci ansaaru diin dañ leen a waxoon na leen suñ jaayante jaayantekat mooy lépp loo xam ne dañ koy defal xadara bii taalibe yi nañ ko toggoo kon association bi moo ko war a organiser ci façon bi mu ko mën a tëralee léegi ci aju ci finance yépp ansaaru diin ne moom toggoo na ko lu doon rek dana ko organiser ci taalibe yi dërëm ñaar dërëm ñu def ko ci niñ ko bëgg a defee te wax dëgg yàlla ñi doon ci góor def ci effort yu bëri yoo xam ne suñ bëggoon a tudd niñ ko defee danañu jël temps waaye dañuy doyloo rek ne mboolem taalibe yi tàmbalee ci Sénégal daj àddina këpp kenn ku nekk rek fi nga jot def nga fa dara loo xam ne da nga koo def pour mu jëm si fii ci organisation bi nga xam ne groupement départemental yooyu nekk Sénégal ñoo ko lëkkaloo bokk di def su fekkee ne bëgg naa tënk ci parti boobu noonu laay am noonu laay am ci présentation boobu ma teg ci nag organisation gàmmu gi dañ ko defaroon benn cahier de sollicitation boo xam ne lépp luñ soxla pour Médina pour yéwénal bés bi ci Médina bàyyi dañ ko dëxañoon foofu loolu benn bras technique bu ñuy wax comme comité d'organisation bu Medina baay bi nga xam ne Baye Mamoun seen doom lañ jë jiitaloon ci comité boobu mu saytu ko ak mbooleem membre yi comité bi ñu defar seen plan d'action gàmmu gi lu koy éwénal li ci gouvernement bi war a def ñu jébbal ko ko li ci taalibe yi war a def Ansaarud-Din porté ko dem vers taalibe yi ñu def ko loolu ñu jàpp nañ ne tey ci tey kenn ku ci nekk ci ñuy waroon a def def na lim man yàlla lim àtte mooy li xew yëpp xew ci foofu nag fu ñu fa bëggee tàmbali ngërmaane comme mënuñoo tudd ñi def ñëpp ñi tudd ñi mënta ñàkk a tudd ñi yóbbaale ñi tuddut loolu dafay tàmbale ci président de la république monsieur Bassirou yi lu ko waral gouvernement am lañ adressé benn not boo xam ne Medina bàyyi lañ ci waxal ci turam ne Medina bàyyi mooy laaj lii pour gàmmu gi yéwén mu joxe ndigal mbooleem gouvernement am ku ci amee cër rek mu ne la defal li nga war a def ñuy def liñ mën yépp suñ jugee foofu ci tënk dañuy dem ci ministre de l'intérieur bi gis ngeen ko fii biñ ne suba la gàmmu ñëwoon na ànd day gane si ñu seet si ndax engagement yi service yépp jëloon ndax lépp mat na ndax am na lu manqué ndax am na leneen luñ ciy dolli ñun bañ ñëwee li ñu waroon a wax ak ñoom commission technique bi waroon na wax ak ñoom wax nañoo ak ñoom la ca matoon war na waxoon nañ leen ko la ca amoon ay manki manki wax nañ leen ko ñoom it lay nañ la ca doon ngant ndax am na ci problème yoo xam ne ndeke problème technique la woon ñun jàppoon nañ ne manki manki la mais ñoom bi ñu layee ñun jàpp nañ ne problème technique la lu demee ni courant bi lu mel ni ndox mi ci début gàmmu gi am na ay coupure yu bëri yu amoon waaye ñoom li ñu wax mooy technique la ay panne la woon li ci aju ci ndox mi ñoom ñii dëkk Kaolack xam nañ ne forage bii ci lycée te doon jox Medina bàyyi ndox forage boobu nii nii ñuy wax tijjeeku dafa tëju ndax dafa am lu gaaroon ndox mi ba Kaolack yëpp di yuuxu ñu dem bouchonné ko renforcé nag ay citerne ndox su boobaa ñi mëntoon a àgg ci ndox mi yëpp danañ yëg manqué manqué mais loolu moo doon ngant li nga xam ne moo feeñoon ci mbiru ndox mi ñu teg ci Mokhtar Wat gouverneur de la région mooy gouverneur bi teg ci préfet de la région maire Kaolack police centrale gendarmerie Ageroute Sonaget Senelec SONES Sen'Eau hydraulique Eaux-et-Forêts sapeurs-pompiers ONAS service d'hygiène élevage santé ministère de la santé danaa taxaw foofu parce que ñoom dañoo def lu ëpp liñ doon xaar ci ñoom par rapport ak liñ liñ leen demandé woon àggut ci dayo biñ laajoon waaye ñu def góorgóorlu bu ëpp liñ daan def ci anam bu yéwén boo xam ne ak góorgóorlu nga xam ne def nañ ko ci yëpp moo tax ñu tudd dëxañ ñëpp ci seen service yi mais fii ñu taxaw ne ministère de la santé région médical bu Kaolack hôpital El Hadj Ibrahima Niass Croix Rouge douane ak Sonatel ak sécurité alimentaire ñu dem ci communication RTS APS Soleil 2STV Sen TV Walfadjri TFM ak rajo Sénégal internationale. ñu ngi jéggalu ci dog-dog bi wax ji niñ ko niñ bettee suñ kaw rek la rajo Alfayda wala télévision Alfayda Medina Baye TV Baye FM média de Fayda Tawfiq FM Taïba FM ak Kossy TV ak presse en ligne bi yëpp ak Seneweb ak TVS Saloum ñooñu ñooy ñi nga xam ne sëriñ bi ñooy service yi lëkkale mbooloo yu bëri yu doon liggéey ci seen ron suñ paree foofu ñu dem ci ñi nga xam ne ne contribution financière lañ def nga xam ne def nañ loo xam ne utu nañ ci ñi benn benn yi Fonds Médina Baye Fonds Médina Baye fii lañ daje woon ne nañ organiser Médina di dajale benn kees di dajale ci benn kees boo xam ne su Medina xewlee ñu jël ci def ko ci ren def nañ contribution yu am solo ci liggéey gàmm gi jaarale ko ci ansaaru diin versé ko ci seen compte mi nga xam ne moom lañ doon liggéeyee gàmm gi sa doom Cheikh Baye si Taïb ñas defatina ni mu doon defee mooy utuñu ñun jeunesse bi yépp ci joxe alalam joxe montant boo xam ne danañ xam ne kii daf ko bëgg def def ko waaye am na ñu ko def ñu ko am te defuñ ko mu wutu ci ñëpp Papa Demba bi tey def na ci contribution yu am solo Ahmadou Sambo Cheikh Gaye IPRES Mokhtar Diak kuréel 313 bu jamiyatu Ansar Dine te ñuy ñi ci ëpp ñu nekk ñi leen di tuddee femme de la fayda Aline Badara Ndiaye Aline Badara Ndiaye bi ñuy wax SCP Ndiaye Diallo ñuy liggéey suñ collègue suñ mbokk Amadou Sambo Babacar Carlos mbay ak euh, jeunesse bi ñuy wax jeunesse espoir de Medina Baye suñu seen doom Macky Seck bu Seyda Assar njiite ko ak mboolem kenn ku nekk ci ñi ci yëngu rek nii rek lañ ko bëggoon a tënkee pour bañ a jël waxtu ak toogaay parce que li nit ñi di xaar du li ñuy wax ñun li nit ñi di xaar mooy li sëriñ bi war a wax ñu ngi wax ne sëriñ bi daal soxla nañ ñaan nga ñaanal taalibe yi loolu mooy sa liggéey moom ci nga nekk. waaye comme dañuy addu ci turi taalibe yi dañuy wax ne li fi sëriñ yi wax léegi ñun wax nañ ci turi taalibe yi ne samee naa wa ataanaa lañ ci teg projet yooyu mu tudd am na technicien yu yu fi nekk ñi tuddee woon leen benn as benn commission bu ñuy wax cadre et expert taalibe Baay Ñas yëpp nekk ci suñu tuddee ñaar wala ñett ñu ci bokk danañ xam ne ñu bokk ci loolu mën nañoo taxawal réew mi sàkkaat yi taxawal association mun nañu wax ne Babacar Carlos Mbay moomu ñuy tudd nga xam ne nekkoon na secrétaire à présidence de la république kenn la ci euh, nijaay Moustapha Niass kenn la ci Serigne Mbaye Thiam kenn la ci Amadou Samb kenn la ci Cheikh Tidiane Gueye kenn la ci demeet ñooñu nga xam ne ñooy cadre yi nga xam ne li Serigne bi doon wax ne Medina am na cadre yépp dañuy solliciter ne ñoom uyu nañ oote bi Serigne bi oote gannaaw tey danañ daje tënk li nga xam ne moom la Serigne bi wax fii proposé ko ci liñ xalaat maa ngi gërëm di sant di sàkku ñaan pour mbooloo mi yëpp waaye di ko sàkku pour jamiyatu ansaruddin sëriñ bi ñu ngi ñaan kàddu yi bu buy jógati joxewuñ ndigal dañuy ñaan gannaaw Cheikh Ibrahima moo toogoon fii ne taalibe yi dafa bëgg ñu manko ñu nosewu ci jamiyatu ansaruddin ñu ngi sàkku daal kilifa yi fu fuñ mën a àggati message bi am na ba léegi ñuy wax ne bàyyi waxu loolu wala bàyyee ko sosoon sos na leneen am na yeneen yu ñuy tudd bàyyi moo sos yëpp waaye daal fii la toogoon moom ne bind naa leen lettre jàngal ñu lettre boobu ñoonu wax ne nañ lëkkaloo ci jamiyatu ansaar din ñun de uyu nañ ko insha allah buñ desee benn nokki ci kaw suuf ci lañ koy def loolu la ñuy ñaan loolu la ñuy wax taalibe yëpp nañ uyu oote bi te kenn ku nekk na seet fa mu nekk mu géem a affilié bokk ci jamiyatu ansaar din lim laaj ci ay conditions ak ay critères mu remplir ko ñu uyu oote sëriñ bi ba lépp luñ bëgg a defati sëriñ bi du wax fenn ne def leen ko waaye dafay fekk programme la yu fi nekk ñu mën koo def ñuy gërëm di sant mu ne ma tudd sëriñ buub dama ne monsieur le maire mairu Kaolack moo tax ñëwuma ci tur wi ñu ngi tudd sëriñ buub maire Kaolack écran yi ngeen gis tere nit ñi mbëkk weer yi dugg moo ko luwe woon indi ko ci gàmm gi bâche bii ñu def ci gannaaw tànt bi tamit moo ko fi defoon ak jàppale yeneen waaye ak ñi mel ni moom yëpp nga xam ne su kaw Medina xewlee ci kaw la liñ am yëpp danañ ko ci def liñ xam yëpp danañ ko ci def ngi yemal kàddu yi foofu di gërëm di sant di baalu ak sëriñ bi wa ma zalika ala llahi bi aziz salaamaaleykum wa rahmatullah